salaamaaleykum wa rahmatulah. تحته وهاب يا ساق يا مكيل افتح لي واسخن كنا لقي أسنا عدلا بالبس محمد حتى كنا يصير جوعين توبا وحمني وقني هذا وراه تدمن تدمن القاع صار أدي وبيا مشاكل أجيب يوم تهلي كان خبر كابز محمد آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيه شاعر نبغى خلي ما تربي روحي ما تخدي أفيد خدي مغني أفيد أكبر ساحين إيه شاعر نفرق ma dudee dafa am lu am solo lu bëgg kii mooy alfarq bayn al xaqi wal xaqiqa gis naa ne lu am solo la ca tubaab yi ca Grèce ca jamono Yunaan ya jëkk ya jamono Aristote ñoom ak ak Platon Aristote Platon gaa yi ak ak njëriñ jiitu tuwoon taalis ak yooyu Pythagore Aristo moo moo moo jubbanti xawma ndax daa fekkoon sophiste yéen yi kenn ku nekk ne loo mën a loo jàpp ne muy dëgg mooy muy dëgg ku mel ne permen Parmenides waxoon ne al insaanu huwa miqyaasul xaqiqa ñi dal mooy dal mooy ci la ñuy natt dëgg kenn ku kenn ku ne na nga gis dëgg baax na danaa gis njëriñ bu yàgg ci quatre-vingt loo jiitu xam naa yooyu da da ngay wax ba noppi ñu ñëwee lool sa sa xalaat la waaye di jeex ma loolu ci lañ ci jublu mooy daal yow dangaa wax may mën na maa wax boo nee fii penku waaye waajal na sa xalaat la daal ne penku nga ne waaw est ce sama sama sama xalaat la waaw lu am solo la loolu ñàkk référence nga xam ne Aristo dikk ne waaw li ñuy wax nag dafa war a am référence ci biti alxuraan indi ñu ko xul haatu burhaanakum in kuntum saadiqiin justifié leen ma li ngeen di wax yow muy wax ndax li nga wax dëgg la déet xëy na loolu kon da nga gis kon ab julit tey tey dafa am benn waay buy wax naan. naa ma naa ma waaw da ngaa jàpp ne yow yaa ngi ci dëgg ma jàpp ko kenn kenn jàpp ko moo jeex waaw kon daal mbir mi kon kon day mel ne kon kenn ku ne daal bu la neexee jàpp daal mu jeex waaye amoo ci bitti nag fu ngeen di yow seen wax ja fu ngeen di delloo delluwaaye wala faxukaay mabda parce que ne si waxtaane keer mabda lii mabda nangam ak guddi. ne muy fokkee coow lu bari léegi nga xam ne kon wax ji kon dikkate mooy alxaq wala wala xaqiqa daa jàngal gone yi ci tuga ba ñu wax ne leen xaq mooy maa taabaqa alwaaqi wala maa waafaqa alwaaqi dëgg maa ngi yow dañuy wax dëgg ji référence bi ci bitti lay ne ci bitti dégg nga sax ca ilmu kalaam ba ñu coow ca ndax wax yu gi ndax saa sama li li muy gis wax yu la wala du wax yu bu dee wax yu ci bit li lay jóge bu dee leen mën a jóge jóge ci ci biir ñu ne wax yu la ndax saa sama Abdoulaye Abbas nee na saa sama mas naa teg teg teg poojam ci tànkam ci kaw ci kaw pooju Abdoulaye Abbas wax yu ñëw nga xam ne nee na nee na buy ñëw yéen sam day ñaqatoo xëpp ñu dégg lu yëngu nga xam ne nee na keroog moom tuuti dafa jàppoon ne poème bi tey dem ngir disaay gi xam naa sax loolu sax xam naa kii ne waaye mel na ne xaw naa woyof xam naa kii di ko ni ko taarix na ci lay waaye kon kon kon kat xàq kon dëgg dëgg mooy lu jóge ci ci biti boo seetee ci linguistique dëgg ak dàkk ak dagg ñoo bokk araf te linguistique nee na baar yu bokk ay araf ñoo ñooy jëyandoo ci menn maanaam dëgg dàkk mooy lu sax dàkk nag daa mel ne dàkk mooy lu sës rëkk kon naa ko dafay nekkoon di wéy waaye boo demee ci sëñ sëñ Fallu boobu naan waaye dakkuwaay boo nee ko ñaar moom moom moom yaram fekk ba ne dakkuwaay ndekete ñe- ñe- ñeent fukki at ak ñeent la wax kon bu dee foofu kon mën naa kon dakk kon du firi kon luy wéy di wéy waaye dakk nag da- daal lu sax daal lu dëgër la dagg mooy loo xamante ne fu mu jaar ëmbunt dëgg ndax xel yëpp xam nañ dëgg moom xel mu set bakkan nag day dikk ne ne ah man dëgg ma anasi woon kooku mooy kaafir gis dëgg tekkil tànkam mooy xam ne nga xam ne dëgg la léegi maa ngi yow li ñuy jàpp ne dëgg la suñ xel xam na ko suñ li ñuy tuddee la réaction collective al aqlul jamaa yi nga xam ne su- suñ xel yëpp bokk nañ xam ne saaga daa ñaaw mu jeex amut amut nga ne man kat man saaga damaa neex déedéet saaga bu la neexee xam nga ne saaga ne- rafetul man laa neex nag moom waaye xam nga ne rafetul kooku may kooku kon mooy léegi yow so- sooy saaga nit ñi nag kon yow dañ laa war a yar ndax yow kat xam nga ne li nga jàpp ne li la neexee dëppoo wut ak li gën ci biti li ñëpp bokk xel mi mu set li mu àtte mooy saaga baaxut bu bu bu ko nag dafa am nag lu am solo danaa wax go- gone yi di leen jàngal togg may leen togg gu neex ak gu baax bokkut togg gi baax na man damay gis gone jigéen ñi du du wax ne togg gi baax na mag ñeneen ñoom dañu naan togg gi baax na mag ña waaye su mag ñi bu bu nga yëkkal leen ñoom woo xam ne daal togg daa baax ñu ne togg gi baax na lu ñu wax neex na mag ñi daw ma dégg bu baraf neex neex neex daa woyof neex luy gaar la kon naan togg gi baax na waaye duñ wax togg gi neex na kon to- kon léegi alxaq mooy loolu dëgg mooy li nga xam ne ci bitti lañ koy fekk nu ñëpp ñu ñëpp benn boo ci tegee benn mu jox la ñaar kooku màgg yow ak ñëpp a ci yem dañuy xam ne lool képp am ci bitti bi buñ jëlee benn kilo suukar teg ci benn kilo kilo suukar ñu gis ko ñu ne kon lu muy joxe ñu ne ñaar kii déet fukk la kay ñu ko sëñ bi yow xanaa sa xel mi dafay nekkul ñaari kilo suukar yi benn kilo suukar teg ci benn kilo ñaar dong lay doon mu mu doon neex naqari la sa bàyyee ko wax sa sa ma ko ko man di wax dara ñaar dong nga ma doon kooku mooy alxaq sa wax ji nag léegi ñaari kilo suukar yii kii yëkkati benn teg ci benn ne ñaata la nga xool xam ne ñaar la nga ne ñaar la loolu mooy alxaq mooy sa wax ji dëppoo na ak li am kenn du ci werante ku ci werante moom kooku dañ ko war a yóbbu ca faat moom kooku moom bokk ci nit ñi xaqiqa nag la vérité absolue lu rëy rëy la ñi nga taxawee ci suuf si suuf si ëpp la fuuf rëmb la ci lépp ëpp la ëpp sax rëmb mooy nga loo sol suuf si soloo ko kon dana ëpp fépp léegi yow mënoo jot suuf si par fépp suuf di di ko wàññi mënoo koo jot par centimètre loolu mooy al xaqiqa xa- xaqiqa dëgg dëgg dëgg mbir mi néexutu jot yàlla am na ñun ñëpp xam nañ ko vérité absolue la yéefar baag koo man di laaj da nga xam ne asamaaw yàlla ko bind ndox mi yàlla koy indi yàlla yu dundal mooy faat léegi waaye nag naka la yàlla moomu bu duggee ci nag da naan yàlla moom nu nu mu amee nag tum na wax ji soo soo soo soo bàyyi maanaam léegi nag la vérité absolue kenn mënu ko jot moom suufiyanke bi dana ca xam lu faqih bi xamut ki ci mbedd mi xam ci lu lu lu borom xam ba xamut misaal sa salama doon na ci ak kër daal di soxna sa sam doon seeti ab jibéer bi ne fa mu ne ko jibéer bi mu ne jibéer bi ana yàlla mu daal di joxoñ asamaaw mu ne ko gëm na goree ko te te yàlla niw ci asamaan ci waaye niwoom bi muy waxee kooku jàmbaar la ab su fenkee xalaat ñu ne ko ay na laa mu ne kay fa yusalu bi ay na wala si ay na ay na dégg nga niw yi bukk ñoo naka ngay waxee ne ay na yàlla yàlla fan la ne te yàlla fu googu moo ko bind barab la kon looluy xaqiqa nga xam ne nga xam ne nga xam ne kenn ku nekk kii am ci fukki mètre kii am ci junni kilomètre kii am ci milliards kilomètre kii am ci ab centimètre waaye ñoom ñëpp kat ñi ngi ci biir xaqiqa la vérité absolue foofu moom mën nañ faa werante nga ne kii kii kat mi ngi naane ci ci ci naan waay xaadir kii naane ci naan waay saasili kii naane ci naan waay murit kii naane ci naan waay tijaan fan fan bajasat minhu ca wenn doj wi isnata ashata aynan benn doj wi fukki bët ak ñaar ubbiku nañ ca giir gu nekk man caa naan te doo xëccoog sa sa sa morom xad alima kullu unaasin mashrabahum waaye doj yépp nag mooy xaqiqa njaay ba daan ay gars yi ah ndox mi daa mel ne ñee seen ndox ma gis naa ñu ñu ñuy ree rek fekk na fekk na déet dañuy sant seen sant gee tax ñuy ree de ndox mi yépp benn doj wii ci la génne benn ndox la bul séeneen bul séeneen ah lu may xaqiqa kon xaqa googu xaqiqa waaye xaq daal foofu li ma ci gën a yittil mooy du du ni nga bëggee la xaq di doon doo leen doo ni nga bañee la xaq déedéet xaq moom lii rek la ñaari kilo suukar daa ngi nii benn kilo suukar mbuusum suukar mi ñaari mbuus la benn mbuus teg ci benn mbuus ñaata la nga ne ma déet xanaa ma ne waxuma loolu de ñaata la loo gis yow ma ne déet waaye ma ne déet loo gis nga ne ma xanaa ñaari ma jeex na laaj bi topp nga ma loolu nag Sénégal gi ak ñoo soxla lii waay dund ko buñ ko dundul am nañ tuddee annifaaqul itimaa yi nafiq wuruj borom ko su kaa kamil baag nangam ak di jaaw ak daan ko teg lépp nafiq la ndax li muy def amul référence te ko nekk da nga am sëñ tuwaay kii nangam tuwaay nangam tuwaay nangam waaye seen seen seen seen tuwaay yooyu fu fu fu leen koy fekk ci biti amu si ko nga dégg nga dégg waxkat yi ñàkk sooy naan yëg-yëg waaye wax li ñuy wax di yër yër di wax may may may yëg di wax lu yëg lu yëg moom loo yëg xanaa yëg nga dara dara jooju moomu ko di bu dee dëgg la dara ji nga yëg-yëg moomu ko bu yëgee tàngoor moomu tàngoor di ci biti la ñëpp ko yëg kon ñu wér ñi kon li borom xel yi yëpp li ëpp ci ñu borom xel yi li ñu d'accord ci lu dul bànneexu bakkan loola mooy dëgg waaye dund li la neex ay waay ay waay ay waay lu am solo ngoo am solo alfarqu bayna al xaq wal xaqiqa ay waay moo tax ak sidqu ma ne mooy mooy mutabaqatul addaxilati lima yuuxi bi bi qinaa li nga biñ ne la ñaata mbuus moo fi ne nga ne nga ne man ah déedéet man de xanaa su ma sañoon de mu nekk ñett ñu la waxuñu loolu li li nga xam ci sa biir li nga ko xoolee xam ni xel lii ñaari mbuus la lañ la laaj boo ko soo ko waxee soo ko doxee yow dëggu nga soo ko fa bàyyee nag di di wut leneen dëggoo xam nga taxaw ne saa si la ma ay waay bu kun ma saadiqin àndal gaa yooyu di li ñuy jëf ak li ñuy wax lépp dëppoog li ñu xam dëppoog li ñu xam sama ak sama